maanaam dafa wax ni ñi yàlla gën a samu fa mu leen tànne ni ndax góor piir lu nëtëx du ko yar ndax nëtëx nëtëx dafay joxe ay aada aada yoo xam ni nga dog si digganteeg aada yooyu ak ku la rey nga yemale te am na aada yoo xam ni nag ku dogul sa digganteeg ñoom doo àgg fa nga jëm ba mhm. tax mu ni saxra xanaa li ngeen di tuddee taara nee na ñi yàlla bu góor ñu nekk jàmbaar te jàmbaar ga di dëgg waaw te njàmbaar ga di dëgg ndax fetal ki koy xeexe du jàmbaar borom xel la nag jàmbaar piir du xeexe fetal mukk waaye xel nag moo jur fetal xel moo xeexe fetal waaw waaye jàmbaar piir du xeexe fetal moo tax ñi yàlla sakkoon te ñuy jàmbaar piir te jële leen ci saxraa daan na may jamono mu amal ko mu amal jàmbaar piir ba ñu xam ni jamono bii daal moo amal jàmbaar piir dina am yeneen jamono ba tey jële ci saxraa ku xàmme piir ndax itam barab bu xàmme la barab bu la dee xalaatloo xàmme yomb na fa am na foo xam ne ku fa ne ñàkk gis lu nëtëx ba moom sa bakkan dana tax nga bare xalaat te ku bare xalaat di nga bare xàmme ba tey jële na ci saxraa nit ku mën dëddu àdduna mën a jaamu léeg-léeg mu amal ko fa xam na naka la koy amale moo tax ñu ni li moo metti yépp moom saxraa mooy aljanay pas-pas pas-pas dafa am aljannaam a pas pas yombul parce que piir dafa am aljannaam aljannaam moo di as saxraa ndax pas-pas bu liibarul dootul pas-pas te pas-pas piir balaa mën a liibar dëkk fu nëtaxul muy laajte nag léeg jamono saxraa génne jàmbar léeg-léeg saxraa génne borom xel mu xàmme léeg-léeg génne jaamukat waaye bu ko defee bala ko defati mu yàgg ñett lañu ñoo xam ne bu génne bi tey bala génne ba ca des mu yàgg waaw naka la xëyee nag génneendoo ñii ñett ci benn jëmm te mooy jëmm yonent bi muhammad def ko mu di batal def ko mu di hakim def ko mu di zahidan wa abid uh -huh. وإذا كان من عادة الصحراء أن تكون البطل وتكون الحكيم وتكون الزاهد العابد فإنها لم تكون ولن تكون أبدا هؤلاء الثلاثة في رجل واحد في شخص واحد وفي شخصية واحدة مثل ما كونتهم في شخص وفي شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mu mel na kon am na lu yàlla doon waaj ci moom la mu doon waaj ci moom tabarkalla tabarkalla moom la barke bay dox ba bëccëgu tey ndax bindkat boo gis balaa bàyyi bind la ko gënal feeg bind la ko gënal du bàyyi yonent yi bi ñu tegloo ba léegi juróom-ñaari junni at la bu ci yàlla bind dana xam la mu indi waaye dana xam la mu defe ba mu bindee la ko gënal dëgg dëgg beneen dikkatul waaw bindkat boo gis rek bindkat boo gis moo xam yettkat la moo xam desenkat la moo xam lu mu doon bés bu defee bu ko gënal bàyyi ndax dafay bañ beneen bu manqué wuutu ko mhm. mel na rek ci ci déggin rek neex naa neex naa layal waaw ci déggin daal neex na layal ndax itam la fa mu tàmbalee ba yàlla dogale ni mu demee léegi nu ngi koy junj sànq xeetu xam-xam xeetu xam xeetu barke li ci yàlla génne ci turam ci leeram adduna bi amatul fu mu jaar ba génneeti ku mel noonu xaju fi wax ya nag bare na لدى الطور موسى نود يخلع وأحمد على العرش لم يذن بخلع نعاله وخن ni ki ko sunu way jureel xaj Abdul Aziz doon waxe sànq yonent gu ne yàlla nee na la summil sa dal da yaa ci sama salle d'attente waaye yàkkamti yonent bee ko ko wax <laughs> waaw yàkkamti ndax soppe da nga ko yàkkamti ba tabarkal la sax xëy na loolu du la yitteel waaw لدى الطور موسى نودي يخلع وأحمد على العرش لم يوزن بخلع نعاله mu mel na nag na mu na mu boole woon asamaan ak suuf dañu ko yëg waaw na mu boole woon ak na mu boole woon asamaan ak suuf dañu ko yëg ci kaw ñàkk nappeem moom yàlla xew-xew ba gën a tuuti ci kër yonent bi ci bëccëg bi jaral na ko wàcce aaya bu wone ni ca la bokk fa dema dem ba asamaan suuf amatul frontière waaw dama dem ba asamaan ak suuf amatul frontière ndax ku la yitteel fu mu nekk doo bëgg dara dox fa xam naa yonent bi yàlla yitteel na ko waaye moom it yitteel na yàlla wax dëgg yàlla waaw ndax daal asamaan ak suuf moom frontière amatu ci woon waaw waxuma la nag front te front dafa daan am frontière di fa am ñaar yëpp amatu fa waaw te ni alquran wàcce ku ko xool xam ni frontière amatu fi mhm. mu digal ko nag mu wut njaboot te it su wutee njaboot mu saxal ci ñoom rawan timbun dagang. Mhm. Aha. Ndax rawan timbun dagan mai rawan bi nga bëggul kenn raw la sekalit ki kondir ko sek bëgg nga ko Uhum. Mm-hmm. ndax li ma la yéene yal naa ci jiitu tuutiwul waaw waaw bokk kilifa gu baax moo koy maye. Mm-hmm.